wajal kalaami rashidan wa murshida wa fikrati nawwir wa xalbi arshida mbokk yi asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu ñoo ngi leen di nuyu te di leen ziyaara di bëgg a dikk ak yéen ni ñu ko baaxoo ànde ak yéen ci suñu jataayu xam-xam yi nga xam ne dañu ci fàtt leen teendoo ak yéen ci lenn ci mbindum sëriñ bi radiyallahu anhu te ñu nekk ak ci ak yéen ci téereem bi nga xam ne moom la tudde maxaaliqu niiraani wa mafatixul jinaan te suñu bind bi weesu ñu tolloon ci bayit yi nga xam ne sëriñ bi radiallahu anhu mi ngi ci soññee ci xam-xam waaye it mi ngi ci soññee mi ngi soññee ci li nga xam ne mooy jëfe xam-xam waaye it di ñu leeral ñaari mbir yooyu ni ñu lënkaloo ñaari mbir yooyu ni ñu tàqaloo ba nga xam ne benn mënu cee dem bàyyi sa moroom ñoo taxawoon ci bayit bi nga xam ne ci la doon wax naa fal ilmu wala amalu jawharaani li xayri daareeni yajlubaani na ngeen xam ne xam-xam day ak jëfe xam-xam mooy ñaari virus yu gànjaro yi nga xam ne lépp lu di yiwu àdduna ak yiwu àllaaxira ñoom ñoo koy ñoddi kon lépp lu waay am ci lu baax euh, muy yiwu àdduna wala lépp lu waay am ëllëg yowmal xiyaam ci ñaari mbir yooyu rek la jaare ba am ko mooy lan mooy xam-xam fàggu xam-xam waaye it ak jëfe li nga xam ne moo di xam-xam ci ñaari yooyu rek ci la ko ci la ko amee waaye sëriñ bi di continuer ba tey di wax rek ne wa asraful ni gën gaa teddi ñaari cosaan yooyu ilmun mooy xam-xam boo xam ne xuddima jiitaleef na ko kama ata naka mu dikkee bihi ca moom xadisun ab xadis boo xam ne xat sama yëkkatiku na kawe na sëriñ bi radiyallahu anhu nee na ñaar yooyu day ñaar yu tedd la ñaari cosaan yu tedd la muy xam-xam ak jëfe xam-xam waaye nag ba nga xam ne moo ca gën nag mooy jiital xam-xam kon bépp jëf goo xam ne moom la nit ki di jëf daf caa a jiital xam-xam ba pare comme ni nga xam ne noonu la ko euh, xaddis ande euh, te it sàkku xam-xam doon loo xam ne diina daf cee soññe bu baax a baax waaye yonente bi sallallahu alayhi wa itam soññe ci bu baax a baax a baax a baax ñu ngi koy gis ci xadis muy wax ne euh, talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslima sàkku xam-xam kat farata la ci jullit bu góor ak jullit bu jigéen kon loolu dafa wone solo solo soo xam ne sàkku xam-xam am na ko waay yitte joo xam ne war nañ ko koo jox euh, te it sëriñ bi mu ngi doon wax ci euh, jawharun nafis ci ni nga xam ne noonu la ko al imaamul Awfi waxee di wax ne képp koo xam ne day jëf sax jëf jëmi jëf bu ca xamut lan moo ci atteb suñu borom bi subhanahu wa taala jëf jooja deesu ko nungu te loolu bu fekkee ne noonu la demee lay tax ñu man ko nungu mooy nit ki faaw li muy jëf daf ko war a teg ci xam-xam kon ñaar yooyu yëpp a baax muy xam ba pare diko jëfe waaye nag Euh, xame xam gi moom moo ëpp solo fuuf moo ëpp doole jëfe gi kon nit ki balaa jëf la muy jëf daf ko war a teg ci xam-xam waaye ñaari nag dañoo lëkkaloo ba benn mënta dem bàyyi sa moroom moo tax sëriñ bi di waxaat feneen ne wal taalamanna bi anna ilman wa amal huma wasilata saadati ajal da ngeen xam ne xam-xam day ak jëfe xam-xam mooy ñaari mbir yi nga xam ne moom mooy fàggul nit ki ak texe euh, waaw mooy ñaari mbir yi nga xam ne mooy fàggul nit ki ak texe kon képp koo xam ne texe na rek ci ñaar yooyu ci la jaare euh, texe moo tax sëriñ bi di waxaat euh, di continuer di wax ba tey rek ne is ngir kullu amilin jëpp jëf joo xam ne yura def na ko gis bilaa bila min ci lu dul xam fa saayuhu jëfam joojee day mislu haba in mi ngi mel ni ab pënd nusira bopp wesaare nañu ko nee na képp koo xam ne da ngay jëf jëf joo xam ne day tego ko ci xam-xam nee na sa jëf joojee day mel ni pënd ba ñu wesaare maanaam day mel ni pënd ba ñu wesaare kon jëf jooja benn njariñ du la ko amal kon am na solo lool nit ki euh, sooy jëf mu teg ko ci xam-xam waaye am na solo lool nit ki su bëggee def dara mu xam lan moo ci di ab àtte te loolu sàkku xam-xam rek moom moo ko mën a may jullit bi waaye sàkku xam-xam moo ko mën a may doomu aadama bi looloo tax sëriñ bi lawan anhu doon soññ ndaw ñi bu baax a baax a baax euh, di wax ne ya ma'shara shubaani in xiftum xajal fa xaddimu taalluman ala al amal yéen mboolem waxambaane yi day su ngeen ragalee gàcce na ngeen di jiital xam-xam la njëkk ngeen di jëf jëf ju ngeen di jëf ju na ngeen ci jiital xam lu ba pare doo doo doo doo doog a jëf mu waxaat ba tey ne waman tajarada li taatil jalil xabla taallumin fa xumrun la nabil képp koo xam ne day rafle nga ci ak topp yàlla goo xam ne ak xam lalu ko nena na nga xam ne ab dof nga teyit xeluwoo maanaam amoo am xel kon ku am am xel balaa jëf lenn loo xam ne mooy ndigalu suñu borom bi subhanahu wa taala faaw dana gëstu ba xam lan moo ci da ay atte mu xam naka la ko war a jëfee waaye naka la ko suñ borom subhanahu wa taala diglee mu man koo defe noona te loola yépp euh, doomu aadama bi mënu koo jëf li feek euh, li feek suñu borom bi subhanahu wa taala la doomu mënu koo jëf li feek mu sàkku xam-xam ngir jëmmi suñu borom bi subhanahu wa taala sëriñ bi itam euh, di ko waxaat ba tey ne jamaalukum ilmun wa saayun wa adab falaazimuha yurfa ankumul wadab na ngeen xam ne seenub taar de mooy xam-xam ak jëfe xam-xam ak ay teggin kon na ngeen ko sàkko bu baax a baax bu ngeen ko sàkkoo de lépp loo xam ne mooy gàcce wala lépp loo xam ne moo di ak cikk wala ay ayib wala ak manki loolu lépp suñu borom subhanahu wa taala dina leen ko teggil kon nit ki war naa fexey ba la muy jëf du doon pënd ba ñuy wesaare waaye du nuroo ak pënd bu wesaaroo waaye nag la ko koy taxa am mooy la nga xam ne moom lay jëf mu teg ko ci xam-xam waaye muy sàkku xam te jëm yàlla rek tax ngir li nga xam ne moom lay jëf mu mën a dëppoo ak li nga xam ne mooy mooy li suñu borom subhaanahu wa taala euh, santaane ndax xam-xam mooy loo xam ne day dundal ab xol mooy li xam ne Euh, mooy loo xam ne day dundal ab xol euh, xam-xam rek mooy li nga xam ne mooy dundal ab xol te loolu sëriñ bi radiyallahu anhu itam wax na ci lu yaatoo yaatoo yaatu euh, ñu ngi koy gis ci biir mbindam ba tey muy wax ne fal ilmu yuhyi xalba man taalluma yunawwirul xalba kama yajlul ama maanaam xam-xam de mooy dundal xolub aji jàng maanaam képp koo xam ne yaa ngi sàkku xam-xam de xam-xam booba bu fekkee ne sàkku xam-xam a jub rek moo tax nga koy sàkku euh, bu boobaa loola day dundal sa xol nekk nga xam ne noonu la euh, euh, noon noonu la ak leer leer di leerale xolub maanaam aji réer ji aji réer ni nga xam ne noonu la ab xolam di leere ci xam-xam noonu lay dundale ab xolub ki nga xam ne mooy sàkku xam-xam di waxaat ba tey ne al ilmu fihi xayaatun lil xulub kama taxyal bilaadu ida massaha ida ma massaha al dana xam-xam day euh, ak dundalu xol mi ngi ci comme ni nga xam ne noonu la suuf si di dunde su ko ab taw laalee maanaam su ab taw laalee suuf si ba euh, euh, suuf si tàmbali di dundaat gàncax gi tàmbale di sax noonu nga xam ne noonu lay dundee xam-xam bu toqee ci xolub doomu aadama bi dund gu mel noonu la fay saxal waaye day saxal xol ba muy doon xol boo xam ne xol bu naat lay doon waaye xol buy dund lay doon te lépp ab xam-xam rek moom mooy li nga xam ne moom moo ko mën a may doomu aadama bi sëriñ bi di continuer ba tey di wax rek ne waman xawaa ku làq ilman xam-xam walay sa yaamalu te déet mooy aji jëfe ko muy aji jëfe bihi ca xam-xam boobee fa innahu naka moom ximaarun mbaam la yaxmilu moo xam ne dafa sëf ay téere nee na képp koo xam ne làq nga xam-xam ba pare de tey li ngay jëf doo ko teg ci xam-xam maanaam xam-xam boobu nga sàkku ba am ko doo ko jëfe nee na yaag mbaam musa fi téere yéen a yem ndax mbaam musa fi du mën a jariñu ca téere yem sëf lu dul ab coono rek la cay amee waaye ki nga xam ne moo sàkku ab xam-xam ba te ba pare itam te jëfewul xam-xam boobee coono la koy andil waaye day mel ni itam mbaam musa fi téere na ko euh, diisaayub téere yooyu di andil ab coono te du ci am euh, benn du ko amal benn njariñ nee na képp koo xam ne itam am na ab xam-xam ba pare te du ko jëfee Euh, noona rek lay mel moom mbaam mosu fi téere ñooyem te loolu alquran mi ngi ciy wax ne masalu alladina xummilu tawrata summa lam yaxmiluha ka masalil ximaari yaxmilu asfara bi sa masalul xawmi alladina kazzabu bi ayatillahi wallahu la yahdi alxawma alzalimin kon loolu itam lu matam moytandiku la mooy xam ba pare waaye di ñàkk jëfe xam-xam boobu Euh, ndax loolu euh, amul benn njariñ te it euh, pertange rek lay jëral jural nit ki ëllëg yawmal xiyaam sëriñ bi wax ba tey ne taallamul ilma na ngeen sàkku xam-xam li wajhillaahi ngir jëmmi yàlla rek tax duunal munafasati ci lu dul xëccoo ak a pu wattabaahi ak a puukarantewu wala duunal munafasati ci lu dul rawante wattabaahi ak a puukarewo sëriñ bi radiyallahu anhu nee na na ngeen sàkku xam-xam te jëmmi yàlla rek tax maanaam bu ngeen di sàkku xam-xam na ngeen te jiital euh, ak ak ak ragal yàlla waaye bu ngeen koy sàkku itam na ngeen na ngeen na ngeen ko def te jëmmi yàlla rek tax na ngeen te jiital ak sellal waaye bu leen ko def ngir jëmmi kenn na ngeen ko def te jëmmi yàlla rek tax waaye na ngeen ko def te ngir denc ak rek tax waaye bu leen ko def ngir leneen su ngeen ko defee ngir leneen rek boobaa suñu borom subhanahu wa taala da leen di bàyyeeg tax ngeen koy euh, ngeen koy def euh, loolee tax ngeen koy def moo tax sëriñ bi di wax ci masaalik ba tey ne naafiahu allazi lfata taallama lillahi jalla wahdahu allama xam-xam bi nga xam ne mooy jëriñ de mooy xam-xam bi nga xam ne kem si jàng na ko euh, te jëm yàlla dong tax waaye bi mu ko jàngee te jëm yàlla rek tax itam mu wëlbatiku ñi nga xam ne ñoo ko soxla mu leen koy xamalaate noonu nga xam ne euh, noonu la ko xam noonu la ko xamloo moo tax yonente bi sallallahu alayhi wa sallam di wax ci xadis ne euh, ki gën ci yéen mooy ki jàng euh, ba pare ki jàng ba pare ki jàng alquran ba pare di ko jàngalewaat te alquran xam-xam yépp ci la ball ci kon dañuy wax ne ki gën ci yéen rek mooy ki jàng ba pare war wërbatiku di ko di di jàngale waat euh, xayrukum man taallama alqur'ana wa allamahu kon euh, bu ñu koy def nañu ko def te jëm yàlla rek tax waaye nañu ci jublu euh, ak sellal sëriñ bi di waxaat fële ba tey ne li wajhi rabbika sudi taalluma takun surur al awliyai wal ulama maanaam booy sàkku xam-xam na nga ci jublu jëmmi suñu borom bi subhaanahu wa taala rek ndax soo ko defee day di doon bëgteem ñi nga xam ne ñooy wali waaye da doon bëgteem borom xam-xam kon nit ki buy sàkku xam-xam na ko sàkku te jëmmi yàlla rek tax waaye na ko sàkku ci ak rafetal waaye na ko sàkku ci ak sellal bañ cee dugal daraay bokkaale waaye bañ cee dugal daraay daraay àdduna su ko defee loolu mooy la nga xam ne moo koy moo koy jariñ sëriñ bi di ba tey di wax rek ne laa tax sudus ci baraya laa tax sudu bu leen jublu istimaalatal baraya jenguk mbindeef yi lakum ñeel leen wala xawsakum du caagee ne seenub làq alhadaya addiye sëriñ bi ne na bu ngeen di sàkku xam-xam bu leen ci jublu euh, maanaam nit ñi jeng jëm ci seenu wet maanaam nit ñépp baat bi ko wut si leen ne na loolu bu leen ko ci jublu bu leen ci jublu itam nit ñi di dajale ay addiya di leen ko jox nit ñi di dajale ay addiya euh, di leen ko jox ne na bu leen ci jublu loolu Euh, nee na yooyu day su ngeen ko ci jubloo li nga xam ne moo leen ci taxana jub dëgg-dëgg du ngeen ko ci am kon nit ki suy sàkku xam-xam la mu ca war a jublu du sàkk ko ngir rawante euh, ngir nit ñi ne wala moo fi raw du sàkk ngir nit ñi jublu ko waaye du sàkk ko ngir nit ñi di dajale ay yee di ko jox waaye daf ko war a sàkku ngir jëmmi yàlla euh, rek tax moo tax Euh, sëriñ bi di wax fële ci munawwir ba tey ne laa tatluban mujarrad riwaya bal dum ma ilmaha ila diraya laa taqsud istimaratal wujuhi laka la daa bat ika za tawjihi xuruja min dalali wa ismatan min dararil idlali ne na boo koy sàkku de bul ko sàkku euh, ngir di werante wala di bari ak nettali ne na waaye nanga ko sàkku ngir xam rek te it bul ngir Euh, nit ñi jublu ci la waaye boo koy sàkku sa tàmbali rek na nga ca fas euh, pas-pas bu rafet waaye na nga ca fas ak sellal waaye na nga ca jublu génn ci ak réer waaye na nga ca jublu lépp loo xam ne moom nga jëf nga teg ko ci xam-xam noonu la sëriñ bi radiyallahu anhu jàngalee bu ñuy sàkku xam-xam ñu am ca yéene ju mel noonu waaye bu ñuy sàkku xam-xam itam ñu fas ca pas-pas bu mel noonu kon loolu sëriñ bi radiyallahu leeral na ci lu bare bari ci téere boobu itam muy e, Munawwirus Sudur e, e, fële itam ci masali boo demee ma nga fay wax ne laama tuallima mira anwariya awil mubahata bihi faltadriya wala allazi suyidati dunya bihi li xubbi jaahin wa maqaamin na bihi wala allazi yatlubu litaxayuli bihi li sarfi kulli xalbin fanqali ne sëriñ bi ne na euh, su xam-xam de buñ koy sàkku du xam-xam bi nga xam ne dañ koy sàkku ngir di werante wala xam bi nga xam ne dañ koy sàkku ngir ngisal di bëgg nit ñi di la euh, gis di la euh, jox daraja joo xam ne yayoo ko wala nga ci ciy puukare wala nga ci fiir àdduna di ko ci rëbb wala nga bëgg ci daraja yooyu yëpp wala nga ci def ay pexey nee na yooyu yëpp day Euh, du la nga xam ne moo tax a jóg sàkku xam-xam kon xam-xam bees koy sàkku la tax ñu koy sàkku mooy lan mooy sàkku ko te jëm yàlla rek tax waaye sàkku ko ngir génn denc ak réer waaye sàkku ko ngir mën a euh, jariñ euh, sa bopp waaye ngir mën a xam fi ngay teg sa tànk ci li nga xam ne moo di ak jaamu yàlla sëriñ bi di continuer di wax ba tey ne fa man taallama ku sàkku Euh, lima la nga xam ne euh, fa man taallama ku sàkku xam-xam lima ngir la nga xam ne xat zukira tuddeef na ko fa saayuhu jëfam joojee day jaraa daw na fi hadmi diinihi ci màbb diineem nee na képp koo xam ne day sàkku nga xam-xam euh, ngir mbir yi nga xam ne moom lañ tudd mooy di puukarantewu ak a bëgg nit ñi di jàng di jëm si ci yow ak nit ñi di dajale ay addiya di la ko jox nee na na nga xam ne day màbb nga sa diine ndax li la diine digle woon nga war cee nga war a sàkku xam-xam biir loola nee na doxoo ci loola kon na nga xam ne màbb nga sa diine wa baate it jaay nga axi wa baate jaay na axiratahu alaxiram bi dunya ci dun adduna wa daate e, réer na naax saay na saayuhu jëfam ja wa xaabate sooy na saayan jëfam ya nee na képp xam ne itam loolu ñu wax moo tax ngay sàkku xam-xam na xam ne jaay nga sa àdduna jaay nga euh, sa àdduna euh, jaay nga sa àllaaxira jënde ko àdduna te it euh, sooyal nga sa jëf waaye réeral nga li nga xam ne mooy sa jëf mooy la sëriñ bi doon wax ne man baa nuuran bi du jaafa sa yandamu képp koo xam ne jaay nga ak ak lëndëm jaay nga ak leer jënde ko ak lëndëm day xal set naa réccu maanaam dana réccu bu ëllëg yowmal xiyaamee te képp koo xam ne sàkk nga xam-xam ngir yooyu nga xam ne moom lañ tudd rek nee na euh, kon yaa ngi sàkku xam-xam boo xam ne la tax nga la taxoon euh, la taxoon xam-xam a jug loola da nga koo euh, jàdd da ngaa jàdd yoon wax te it loola lam lay jural ëllëg mooy pertange waaye lam lay jural ëllëg mooy jëf joo xam ne jëf ju sànku lay doon waaye sooy rek la lay jural ëllëg is ngir safaxatun ab euh, ab ab ab accord xadir te jaaxa bopp commercé na ko xasirat perte na ko wa bayoxu te njaayam ma mm, euh, tijaaratun commerce la joo xam ne maarabi xat euh, bénéfice wu na képp koo xam ne def na lool day mi ngi mel ni commerçant boo xam ne mi ngi doon jaay waaye marchandise ma pertaangi rek la ci jële waaye amute benn bénéfice wa na man naka ka nga xam ne nag allamahu jàngal na ko xad kaana nekk na miwaanan di aji dimbali lahu ñeel ko ala asiyaanihi ca moyam ga dana képp koo xam ne nag loolu moo tax muy sàkku xam-xam képp koo xam ne yaa ngi koy jàngal na nga xam ne yaa ngi koy dimbali ci ak moy yaa ngi koy dimbali ci ak moy ndax eh, li nga xam ne moo tax a jug sàkku xam-xam muy sàkku ko te jëmmi yàlla tax waaye sàkku ko eh, ngir xam ni ngay jaamoo suñu borom sàkku ko ngir mën a dimbali jaami yàlla yi loolu nga xam ne moo ko tax a jug su fekkee ne nit ki daf koo teg ne di ko sàkku ngir puukarewu wala mu koy sàkku ngir jub nit ñi jublu si ko wala mu koy sàkku ngir di ci euh, euh, sàkku ay addiya wala yooyu nga xam ne moom lañ tudd yooyu yëpp ku sàkku xam-xam euh, jiital yu mel noonu képp koo xam ne xam nga ko ba pare di ko jàngal nee na yaa ngi koy dimbali ci ak mooy yàlla nee na yaa ngi koy dimbali ci ak mooy yàlla moo tax mu ne fa huwa moom day moom mu nga xam ne moo koy jàngal mu musharikun aji bokkaale la lahu ñeel ko fi durri ca lor ya kaman yabiu sayfa mi ngi mel ni kuy jaay jaasi ahlal makri ñooñ pexe ne na képp koo xam ne noonu lay sàkku xam-xam loolu mooy ay jubluwaayam ci sàkku xam-xam képp ku ko jàngal na nga xam ne yaa ngi koy dimbali lor yi nga xam ne moom la bëgg lor doomu aadama yi waaye it kooku kooku nga xam ne moom ngay dimbali ci loolu mi ngi mel ni koo xam ne day dimbali euh, euh, raykatum nit wala ab dogaalekatu nit euh, mu koy dimbali di ko jaay lu mel ni jaasi kon ki nga xam ne ab agresseur la ku koy dimbali ku koy jaay rek yaa ngi koy dimbali ci ak mooy te lépp loo xam ne jële na ko fa comme ay bàkkaar bàkkaar yooyu yow mi ko jaay jaasi jooja da ko koy dimbali waaye ki nga xam ne mooy sàkku xam-xam ngir lee ñu wax képp koo xam ne moo koy jàngal xam-xam na xam ne moo ngi koy dimbali euh, ci euh, ak euh, ñàkk a topp yàlla waaye moo ngi koy dimbali ci loo xam ne xam-xam loolu taxul woo taxu koon a jóg waaye moo ngi koy dimbali ci lu neexut suñu borom bi subhanahu wa taala kon xam-xam bu ñu koy sàkku dañ ko war a sàkku te jëmmi yàlla rek tax waaye buñ ko sàkkoo ba pare ta pare ñu jëfe ko <coughs> ñu jëfe ko waaye jëfe ko ci anam ba nga xam ne ca la gën a rafete ngir ñu mën caa am ngërëmul suñu borom bi subhanahu wa taala kon ñu ngi tuub bu baax tey jégglu di wax ne in uridu illa al-islaha mastata'tu wa ma tawfiqi illa billah wa salaamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh ala sahabati wa sadati kullihim ibadu rabbil aradi wa samawati ala sahabati wa sadati